waaw dañ koy lancé tey bu bu neexee yàlla euh, ci ñetti waxtu ci ngoon euh, lancement ak la ñuy def waaye jaloog bi en tant que tel ce sera pendant trois jours à partir de demain euh, boo ma mayee rek ma ñëw tuuti ci li ñu mujjee daanale jàpp naa ne Afrique dafa soxla li ñuy naan une diplomatie inclusive boo déggee ma wax loolu mooy lan dafay mel ni Afrique ku am sa problème dañ lay bàyyi ak sa problème nga gérer sa bopp après boo bu méttee ñu ñëw renforcer ñoo ne oui on va faire ceci on va faire cela alors que li ñuy wax gouverner c'est prévoir ça signifie que le rôle même de l'Union africaine le rôle même de la CEDEAO c'est d'anticiper sur toutes les crises de l'Afrique que ce soit crise alimentaire crise euh, de guerre euh, interne euh, fratricide etc dañ ko war a anticiper malheureusement c'est pas le chaque fois dañuy xool ba dara xew na ñu ne léegi position CEDEAO lii la position Union africaine lii la malheureusement et donc c'est là où on va revoir notre diplomatie inclusive pour wax ne Sénégal bu amee problème dañuy xaar ba moom am problème ñu doog a dem déedéet war nañu am des des bon déjà Union africaine am na institut boo xamante ne day gëstu de recherche Et pourquoi pas ils anticipent pas sur tous les problèmes pour pouvoir les régler en amont balaa ñu ci yegg